jaari ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Jawe di nuyu téléspectateur Prestige TV yëpp di leen wax comme d'habitude rek ñëwaat rek ci seen pré seen émission Prestige éducation ah nekk toujours fidèle serviteur rek nekkal fi askan wi rek. <laughs> jaari tey nag ñu am gën goo xam ne éducation moo ko ñor. lépp loo xam ne dafa làmb ci wàllu ndaw. Euh, euh, mooy itteem mooy bëgg-bëgg mooy soxlaam jaari kooku mooy kan. waaw tey moom suñu ganu tey moom defe naa neex naa présenté parce que suñu nee inspecteur de la jeunesse rek ah gis ko moom mii ndeysaan mu nekk ab jeune nekk ci biir jeune yi defe naa ne loolu xel maye na ko xel nangu na ko ndax liggéey ba dina yomb ñu koy woowee Ibrahima Niass Diawo nekk chef de service départemental de la jeunesse bu Thiès mais aussi le directeur du CEDEPS de Thiès tey kooku mooy suñu gan macha allah jaay kon gat googu amna solo tay dañuy waxtaan waxtaan bo xam amna solo ndax tay suñu temu tay moy le CDEPS et ses missions. Mhm. ki nga xam nak nag fi nekkal CDEPS bobu mom la ñuy dalal monsieur Diawo ñu lay nuyu de la ziar di la dalal. waaw euh ma ngi di nuyu yéen euh di len sante di len gërëm ci invité bi ngeen ma invité ci seen émission bi di prestige éducation mhm. émission bi nga xamante yar moko ko tax yar ndaw ñi te j'espère que ku wax ndaw rek yar nga ciy teg mhm. parce que ndaw lépp loo ko mën a jox boo ko yarul rek du ko mhm. du ko jëriñ mhm. kon ñuy jiital ci ndaw yi éducation euh, dafa nekk lu am solo yéen ngeen créer benn émission boo xam ne da ngeen ko jagleel yar ndaw ñi kon lu ñu mën euh, lu may di leen ci féliciter di leen ci remercier ci invitation bi mais it di leen encourager euh, gis nañ li ngeen di liggéey vraiment ci biir euh, Thiès te vraiment ñëpp rafetlu nañ ko man nag content euh, naa trop tey si li ngeen may invité émission bi nga xamen ne li ko tax a wax euh, ci SEDEPS mhm. wax li nga ne SEDEPS moo ko tax a jóg mhm. parce que ñu bëri dañuy dégg SEDEPS SEDEPS mhm. mais xamuñ lan mooy mission SEDEPS te mu xaw a nekk lu xaw a doy waar parce que loo xam ne pour ndaw ñi ñoo ko

damay faral di wax ni dañuy dégg rek ñu naan yar yaru yeete euh, émi yar yaru yeete émission bi da lay yar euh, te bu la yaroo di nga yaru te monsieur l'inspecteur ku yarwul mënoo yee kenn moo tax ñu bëgg toujours di defal jikko yi euh, mais jikko nag boo ko defar da nga koy tàmbale ci ndaw yi inspecteur suñu laaj bu njëkk nag mooy lan mooy la CDEPS mm-hmm. jawi di vraiment question bu am solo parce que nit ñi dañuy dégg CDEPS CDEPS CDEPS mm-hmm. mais ñu bëri dañoo foog ne CDEPS

Depuis euh, 1974, avec le décret 74 856. Mm -hmm. parce que bobu ñu ngi door a ci indépendance. Mm-hmm. ñu gis né ndaw yi dañ leen a war a war leen yar. te comme boobu jàng demeewul woon noonu. ñi mm-hmm. jàng ñi jàngul moo ëpp ñi jàng. Mm-hmm. ñu ne kon nañ créer ben CDEP benn centre ñu koy wax centre d'éducation euh, populaire et sportive. bi nga xamné ne dinañ ci mëna a euh, ndaw ñi. ci ci ci anam yu bari parce que école dafa am lu ñuy wax éducation formelle mais it éducation informelle mhm. te éducation informelle bu nag si la ñuy jaar jàngal li nga xam ne moom la état bi doxee li nga xam ne moom moo war euh, nit ki vis-à-vis de la société mhm. li nga xam ne moo war nit ki vis-à-vis ak état loolu yëpp ñu jaar ko jàngal ko de manière informelle nit ñi nit ñi xam ko mhm. loolu moo taxoon jóg CEDEPS ak tamit euh, formé waale ci yenn yenn yenn yenn ndaw yi nii mhm. donc si lañ mettre en place CEDEPS su tuddee ko centre euh, d'éducation populaire et sportive euh, wax dëgg yàlla moo état ci volonté politique de former les jeunes mhm. bu am solo mhm. ñu jël ko rattaché au ministère de la jeunesse parce que CEDEPS une organisation ministère de la jeunesse la parce qu'il y' a ministère de la jeunesse le niveau central. Mhm. mais à côté du niveau central. il mhm. y' a le niveau opérationnel. cest à dire les services déconcentrés. au niveau région le service régional de la jeunesse c'est un inspecteur mhm. au niveau du département il y a ce qu'on appelle le service départemental de la jeunesse qui est ñu centre euh, d'éducation sportive et populaire et sportive. Mhm. donc nous avons nous CEDEPS. donc SEDEPS CEDEPS euh, ci organiser mhm. euh, inspecteur donc décrire nañu lan mooy CDEPS ñi ko nit ñi yaakaare woon euh, yemul foofu dongo ouais centre de boo xam ni day éduquer boo ko sax centre d'éducation le euh, populaire et sportive donc on na loo xam ni yaatu na li ñu fay def nag nga yaakaar ne ay du parce que c'est des activités socio-éducatives te xale bi aussi dafa a besoin de distraction l'enfant a besoin de loisirs Moi, je ñu créer centre yooyu jaari yaa ko déggandoo <laughs> ni ko insa waxee donc donc euh, bu euh, ci laaj rek parce que définir na euh, ci li nga xamante ni moom rôle am diggante ak jeunesse bi. Mhm. lan la ci lan la mais dañu seetlu dañu gis ni du seetlu sax mais xam nañ ne yenn mouvement yoo xam ne bu yenn kayit par exemple dañ naan dem ci ci association par exemple. est-ce que mhm. loolu aussi dafa beaucoup ci ci loolu CDEPS. effectivement CDEPS mhm. euh, euh, ay mission am dafa dafa bari. Mhm. dafa yaatu. Mhm. moo tax euh, soo gisee ñu commencé ci lan mooy CDEPS. c' pour wax nit ñi ne effectivement CDEPS fan la bokk parce que ñu bëri dañuy dégg CDEPS mais xamuñ sax ndax CDEPS ministère de la jeunesse la bokk parce que bu ñuy wax centre départemental de l' éducation populaire et sportive. dafay laaj ñu wax lan moo nekk ci biir lan moy euh, le contenu même des cedeps Lorsque nous avons ñu commencé leeral wax né cedeps ben nañ jàpp ne mhm. euh, mi ngi ci ministère de la jeunesse mhm. am tutelle technique au niveau euh, régional comme le service départemental de la jeunesse mhm. bo ñëwé au niveau départemental ñu jël SEDEPS dugal ko ci biir service départemental de la jeunesse. Mhm. bi nga xam ne inspecteur bi. moom moo fay nekk comme chef de service départemental. Mhm. mooy nekk directeur du SEDEPS. Mhm. et loolu dafay am solo trop ñu leeral ko ci boppu ndaw ñi. ñëpp xam effectivement organisation euh, des services déconcentrés du ministère de la jeunesse naka la tëddee. sànq li ngay laaj nag mooy euh, le rôle. Euh, si wàllu association yi c'est une des missions qui sont dévolues au au CEDEPS mhm. parce que tey ku wax jeunesse wax association mhm. faut dem yaa ngi que jeunesse yi regroupé wu mhm. euh, en association pour régler des problèmes Yo, xam ne wax ne ay c'est des problèmes bu wax ne problème privé mais ay problèmes yoo xam ne la soxal parce que l'état du Sénégal a fait euh, le milieu le, le domaine associatif mu libéraliser ko ku si qui am le droit de créer association

leur petit frère, leur petite sœur, ils ne nañ créer coordination des étudiants bi nga xam ne dinañ ci jëmmal activités pour nous a à ñooñu. Mhm. loolu fi la moom euh, création association au niveau des quartiers au niveau euh, des villes au niveau des régions. Mhm. rôle CDEPS nag création association boobu mooy lan. Mhm. mooy mu teg une ci yoon bi nga reconnaissance. Euh, au niveau des autorités mhm. euh, administratives parce que tu mën nga toog créer une association di mener say activité mhm. mais soo une reconnaissance euh, juridique mhm. doo am li personnalité juridique Tu doo une a am yenn une activité niveau de l'association. association du fa mos effectivement parce que da ngay dans dans l'informel et c'est danger sax pour pour association parce que dara as koy def pour nga mën am droit organiser telle ou telle activité da nga une existence juridique. ce qui est ñu ne comme euh, il comme y a le CEDEPS. Euh, qui est une structure qui est aux jeunes. Mhm. Donc euh, bu ngeen di ut les associations dem leen au niveau ñu encadré leen wan leen yoon bi naka la. orienté leen orienté leen ba ngeen xamee ne. Mhm. Euh, di ngeen mën a am une reconnaissance juridique. effectivement lépp li nga xam ne moo leen war ci seen diggante ak seen i population wala lépp li nga xam ne moo tax ngeen jëmmal association boobu noonu ngeen mën ko dox. Euh, respecter yoon. Euh, respecter li nga xamante ne euh, règle yi nga régir les associations. C'est très mhm. important Machallah, allah donc mhm. donc comme ni ko notre invité waxee rek am solo et un service de service chef de service départemental de la jeunesse mais SEREF dafa mel dafa am waa pàll service bobo. donc le dafa bokk ci benn service. donc SEREF du service à part. dafa nekk ci benn service am lu mu fay et le service départemental de la jeunesse euh, mais inspecteur de am ci sa présentation jaari da ko présenté mais inspecteur départemental de la jeunesse la est directeur. directeur du service la mooy différence voilà est ce que mën ñu de diggante boobu. statut du chef de service départemental. effectivement Thiawé loolu question pour am solo parce que dafa xaw a lëndëm ci bopp ñu bëri. <laughs> dafa lëndëm sax nag. effectivement ñu bëri tey ñu dégg inspecteur de la jeunesse. suba ñu ne chef de service de la départementale de la jeunesse. suba ñu ne directeur du SEDEPS. wala ñu ne la coordonnateur CCA. donc nit ñi dañuy xaw a perdre waale wu. ci yu bëri yooyu noonu. mais boo xoolee comme ni ñu ko waxee si njëlbeen. Mhm. Euh, ministère de la jeunesse dafa am nu mu organisé wu d' comme ni ma ko mhm. waxee yàlla a le niveau central. Mhm. y a le niveau niveau déconcentré lépp li nga xamné mom concevoir comme politique au niveau central niveau déconcentré mhm. euh, c'est c'est le niveau opérationnel c'est là où on organise les activités ou bien on met en œuvre la politique de jeunesse définie par le chef de le chef l'État donc euh, comme am nga service régional de la jeunesse normalement war nga service départemental de la jeunesse Les services service départemental de la jeunesse c'est une qui CEDEPS centre départemental de l'éducation populaire et sportive mu Ben centre euh, une structure d'animation même du service départemental de la jeunesse mën na dem sax ba un un centre de conseil. mais ñoom ñaar ban moo ci jiitu parce que autant. Hmm. daawoo dégg ñu service départemental de la jeunesse. Hmm. donc xam nga régional bi rek lañ hmm. est-ce que du par li euh, acte 3 de la décentralisation bi moo indi ñaari ñaari structure ñu lëkkaloo non non du acte 3. bi. Euh, dafa nekk rek ne nit ñi lañ gën xam. dafa nekk moo boo des dafa am il ñëw rek service départemental de la de la de la jeunesse. Hmm. alors que CEDEPS, mi ngi ci biir service départemental. contraire bi contraire la. ok au lieu wax c'est le directeur du CDEPS mais dañoo war le chef de service départemental de la jeunesse. Mhm. parce que le service départemental de la jeunesse c'est un cadre global. qui mhm. englobe tout. Mhm. c'est vrai que le euh, service départemental de la jeunesse. Euh, li mu gën a euh, jege wala li ñuy gën euh, service bi nga xam gérer les affaires administratives les questions administratives mm. concernant la jeunesse parce que tey booy dem di représenter CDD ce n'est pas da fay comme casquette ou directeur du CDF, mm-hmm. mais il foofu chef de service départemental Le fay ministère bu un service régional comme un service départemental avant new york CDEPS le service départemental de la jeunesse mhm. il prend en question il prend euh, en question euh, tous les problèmes. Euh, concernant la jeunesse. Mhm. dans sa globalité. et au niveau du département. Mhm. il y a un centre départemental dédié à l'éducation populaire et sportive. Il y a aussi un CCA, il peut, parce que tout CEDEPS, nous un CCA, mais il peut euh, en avoir euh, au niveau du CEDEF, c'est-à-dire un CCA. CCA, non, moi, prendre en charge mhm. la question de la santé de la reproduction des jeunes. Mhm. donc il composantes a des composantes, la ñuy gis le service départemental de la jeunesse l'homme qui ki gérer c'est le chef de service départemental de la jeunesse

directeur du CEDEPS la est euh, chef de service départemental de la jeunesse mais effectivement avant d'être euh, directeur du CEREPS, on est chef de service départemental de la jeunesse puis directeur du du CEDEPS comme le CEREPS est seulement un centre mais vous, mais vous, inspecter. est-ce qu'on peut avoir un chef de service départemental de la jeunesse mm-hmm. ba un directeur du CEREPS à part c'est impossible celui qui est le chef de service départemental celui qui gère qui eh, le CEDEPS effectivement effectivement en général mm-hmm ba kenn le chef de service départemental de la jeunesse donne le directeur du CEDEPS. parce que service départemental de la jeunesse en tant que tel mm-hmm. brûle les activités. activité yi pratiquement koy le effectivement au lieu d'être un démembrement même mais c'est la structure qui, qui, qui, joue l'animation du service départemental de, la, de la jeunesse. Parce que toutes les questions prises, toutes les questions euh, prises en charge euh, au niveau de la jeunesse sont matérialisées au niveau du CELEPS et non mhm. au niveau du service départemental. Mais c'est le CELEPS qui prend en question euh, ces, toutes ces, tous, ces, tous, ces, tous ces problèmes liés à la, jeunesse. Et c'est le chef de service départemental aussi qui gère le CCA Waouh, Lolo. Euh, ou bien effectivement c'est quelque chose boo ramener c'est pas euh, dans tous les départements tous les départements y a des CDEPS e, euh, e mm-hmm. où le directeur du cdeps e est en même temps coordonnateur du CCA. Mm. Mais Mais dans les des CEDEPS, il y a, on a le directeur du cdeps à part, Et, le, et, le, coordonnateur du CCA à part. Mais le directeur du CEDEPS est tout le temps le chef du service départemental de la jeunesse. Là, c'est important d'y Donc, même sa affectation, même, euh, même sa affectation, vie. Il le chef du service départemental de la jeunesse, virgule, directeur, du, du CEDEPS. Très bien loolu c'est important Dia loolu nga xamoon bëriwul de. bëriwul leer na moom moom ñëw tey moom pour leeral trop trop vraiment xaw na xaw na ñoo dee. voilà c'est ça te yéen a ngi di nekk si. milieu ah. milieu jeunesse. milieu jeunesse bi pour wax ne kon imaginer yéen bu ngeen réeree imaginer leen ñeneen nga xam ne ñoo ne suñu gannaaw ñuy réeree. moo tax di rafetlu une fois encore. émission bi nga xam dina permettre nit ñi tamit. xam-xam effectivement. Mm-hmm. structure bi nan la nan la tëddee nan la organiser woo ak ña fa nekk tamit ay ay lan lañ. Mm-hmm. parce que sànq euh, ñu ngi ko doon wax en off. Mm-hmm moy euh, ñi ngi service départemental de la jeunesse. Mhm. ñooñu ñan lañ. ñan lañ ay inspecteur lañu. Mhm. wala ay ay ay agent de xam nga lañ koy waxee agent. sportif lañu parce que bo né populaire rek. Mhm. né sport rek. donc affaire bi day mel léegi est-ce que inspecteur qu'est-ce, mën a diriger mo mën diriger SEDEPS. effectivement euh, bo xolé euh, au ministère de la jeunesse. Euh, on a les, inspecteurs de la jeunesse, mhm. euh, on a les maîtres d'éducation de la jeunesse, mhm. on a les, agents. Mhm. Euh, bon, mm au niveau des services déconcentrés, le plus souvent, il fut un temps où on avait des inspecteurs, parce qu'au niveau régional, il n'y avait que des inspecteurs qui étaient des chefs de service régional de la jeunesse. Les ñu au niveau départemental. Mhm. on avait ce qu'on appelait les inspecteurs adjoints. adjoints. à côté des inspecteurs. les IA quoi. ouais, euh, on a les IA c'est au niveau euh, de l'éducation. Mhm. quand on est inspecteur adjoint IA on a des waaw IA mhm. mais son les gens ont tendance à voir que c'est les eh, c'est c'est les. inspecteurs <laughs> important donc. <laughs> si on a des inspecteurs. Euh, effectivement de la jeunesse au niveau régional. mais mhm. euh, après, au niveau départemental, on, a on avait des inspecteurs adjoints. Mais les gagnants d'un instant, on a dissous ce corps. Le corps des, inspecteurs, adjoints, effectivement, n'existait plus. Mhm. Mhm. Euh, le ministère de la jeunesse a un problème personnel parce qu'on sait que le recrutement, le plus souvent, ça fait défaut dans ce pays. Donc, on ne pouvait pas laisser ces services vacants. Les si ont décidé y fa un maîtres d'éducation populaire parce que nous euh, n'étions pas destiné à assurer euh, à assurer euh, un service, un service, départemental. Mhm. Mais comme on était en déficit de personnel, donc on a mis des maîtres d'éducation populaire à la tête des, des, Des, mhm. effectivement, des services départementaux de la, de la jeunesse. Il Faut vous tout inspecteur du continent. comme nous fa c'était des inspecteurs adjoints on les appelait inspecteurs très bien Si un enseignant il sera appelé inspecteur parce que c'est la problème de communication parce que beaucoup beaucoup gens lu ñu ku

le plus souvent c'est la population parce que waa tay tey ne ko directeur. dina la wuyu. mais soo ne ko inspecteur tamit da lay wuyu. wuyu parce que dans la tête des gens. mais j'ai vu j'ai vu des inspecteurs yoo xam ne boo leen inspecteur de naan man inspecteur mhm. directeur là. effectivement am na xam ñom ils sont sérieux. franchement xam nañu fi fi ñu yam mhm donc duñ abusé wu ci yenn fonction jawee jawee problème bi du foofu de hmm. gis nga euh, li mu wax li ñuy wax sànq parce que euh, mooy que ni CDEPS yi hmm. ak euh, les services départementaux yi hmm. dañu am benn benn incompréhension incompris bu nekk ci biir wax na ko sànq dafa mel ni li mu leeral nii même man ci sama bopp sax dafa mel ni tey jii léegi lay gën a leer parce que ñun population bi li ñu jàpp mooy li ñu doon jàpp dañu jàpp ne rek ku ñëw ci CEDEPS bi rek ah yow. yow yow man dama ko jàppal acte acte trois bi sax moo indi mo indi eh, eh, inspecteurs yi alors que li nga expliqué ni hmm. ça existait bien avant avec le corps des inspecteurs adjoints hmm. donc est-ce que du ñi nga xamante ne ñoom la ñuy teg ci bërëb yi ñoom ñoo war a xam seen yemuwaay xam seen tolluwaay ba nga xam ne nit bu ñëwee parce que man bu ma ñëwee fekk benn kii corps boo xam ne inspecteur moo fa war ku fa ñëw de par cër hmm. parce que par courtoisie du ma ñëw ne la directeur du ma ñëw ne la monsieur l'inspecteur loolu ñu yàlla moo ñu mooñaalee loolu courtoisie boobu mais yow yaa war a am aussi honnêteté intellectuelle bu toy ni ak honnêteté professionnelle bu toy ni su ma nee la jawe inspecteur nga ne ma ay du inspecteur dañ naan si un directeur de service mais du inspecteur mais am na ñoo xam ne dañ ciy abusé loolu di dem bi def rôle inspecteur di dem bi inspecter ay ay ay activité et pourtant IRG bi dafiy nekk aussi moom du ci wax dara waaw loolu moom problème la Sénégal tel, surtout avec euh, l'acte 3 de la décentralisation mm-hmm. Mm-hmm. parce que texte c'est un inspecteur qui doit inspecter et les textes doivent définir carrément qu'est-ce qu'un inspecteur mm-hmm. parce qu'un inspecteur c'est un cadre de la rh ah, ah, ah, qui sort de l'INSEPS avec un bac plus 7 un maître d'éducation populaire, c'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, il n'est pas inspecteur, mais c'est un maître d'éducation populaire. populaire. il fait de l'animation. Mm-hmm. Euh, mais l'inspecteur en tant que tel, euh, c'est on, les voit le plus souvent au niveau régional. Mm-hmm. Et il coordonnait pratiquement l'ensemble des activités qui se faisaient au niveau de la région, et surtout au niveau des, trois départements. Donc, euh, c'était ça. C'est un abus de langage, nous mm -hmm. perdurer, peut-être euh, créer le flou dans, dans la tête de certains. Mhm. mais n'empêche comme nous il y a des gens qui veulent inspecteurs et dire que je je suis pas un inspecteur. c'est ça si jamono dit, Il mhm. y a des départementaux qui sont des inspecteurs. Mhm. parce que comme l'État a, recruté euh, vraiment beaucoup d'inspecteurs euh, ces dernières années, on a vu qu'il serait plus opportun de mettre mhm. au niveau des départements, des, inspecteurs. Pour corriger. effectivement, pour le niveau, mais aussi euh, corriger peut-être certains, certains impairs. Mhm. Parce qu'il y a de ces départements, c'est des, des, des, grands départements. Mhm. Donc, ils ont jugé de mettre à la tête de ces départements des, inspecteurs, inspecteurs euh, euh prestige valeur bi nga euh, les maîtres d'éducation populaire am ko bi au niveau du département. Mm-hmm. parce que vraiment euh, la plupart c'est euh, liggéey vraiment certain au niveau au niveau au niveau des département dans chaque corps il y a des brebis galées, soit des mais quand même ils abattent un travail extraordinaire et c'est des gens aussi qui sont très expérimentés en matière de jeunesse. et vraiment qui ont fait un bon qui qui qui sont en train de faire un bon travail quand même sur le sur le terrain mais pour voir le sànq li l'on wax dafa am solo rek man dem atelier un gars m'a dit sincèrement que je suis ma sax service départemental de la jeunesse mais je savais que c'était ça, mais service départemental de la jeunesse koy parce que yéen da ngeen a service départemental ba SEDEF bi nangu nangu seen bay rek service départemental. am y a une activité qui est menée par rapport aux relations ngeen par rapport à la population ba ñu mën vous reconnaître comme ni ñu reconnaître SEDEF. effectivement mooy que ma la wax sànq nee mhm. les départemental de la jeunesse il gère plus les questions administratives. d'accord au niveau. au niveau au niveau du service départemental maanaam wàllu këyit effectivement ñoom signature effectivement inspection yeeg yooyu. effectivement SEDEPS bi bi mhm. c'est la structure d'animation. C'est le CEDEPS qui organise les activités. Mhm. Euh, les activités. C'est le CEDEPS qui met en œuvre aussi, euh, mhm. qui, met qui met en œuvre euh, la politique qui est définie au niveau, au mhm. niveau, au niveau central, ou bien qui est conçue au niveau central. Donc c'est le, le, le milieu opérationnel. C'est là où on voit que les activités du ministère sont organisés ou bien sont euh, comme ni ñu koy waxee jëmmal au niveau opérationnel. kon yow inspecteur dafa mel ni jawee fi ñu toll nii actuellement nii. Mhm. ak mbas mi ñu toll nii. Mhm. ah yow kenn waru la woon ëpp liggéey. fii ci biir Thiès ci département bi foofu nañ ci dugg sax ah? mbokk ñu leen di fàttali aussi ngeen seen émission précise éducation yar yaru l'été mm-hmm. tey ñi na gan koo xam ne mooy inspecteur départemental de la jeunesse mm-hmm. euh, di chef de service départemental de la jeunesse ñu ko wax le directeur du CDEPS monsieur Ibrahima Niass Diawo moo doon suñu gan bi tey euh, effectivement ñu doon waxtaan ci thème bu am solo mooy le CDEPS et ses comme ni ko eh, ci période bi nga période mi dina ci mm. eh, am mm. mais question ndax ou bien le départemental de la jeunesse avec les mouvements de jeunesse mm-hmm. Bonne relation ngeen am seen digënté wa xam nga comme association et mouvement de jeunesse mm-hmm. pratiquement ils sont sous la tutelle du du du du euh, ku l'association, association nag wax euh, une affaire privée parce que association soo koy créer kenn forcé wu la ci mhm. dinay toog xool ne ñun war nañ créer une association wala war nañ un mouvement bi nga xam ne ci tànk yi lay dox mhm. Mhm. mouvement de jeunesse yi un partenaire lañ ak CEDEPS parce que les mouvements de jeunesse sont des mouvements d'éducation populaire. des partenaires Effectivement, du CEDEPS, Des, alliés. Parce que un domaine d'action, mhm. moins un domaine d'action pour bu et e mhm. si rien que ci tour on a le CEDEPS e e comme centre départemental de l'éducation populaire sportive. les mouvements de jeunesse ils sont euh, pour la plupart des mouvements à but populaire. donc ils font de l'éducation populaire kon nous ay partenaires yu yu yu là Nous sommes la. Mhm. tout le temps ensemble parce que nous, ci une mission ci mission CDEPS la. CDEPS da leen di encadrer di leen di jàppale. ci seen i biir activité mais ñoom ñoo war a dundal CDEPS. normalement effectivement effectivement ñoo war a dundal CDEPS bi. lool parce que. Mhm. animation bi nga soxla. Mhm. ci mouvement de CDEPS effectivement parce que sànq lañ wax lan mooy CDEPS. Mhm. CDEPS c'est la structure d'animation du service départemental de la jeunesse. CDEPS euh, animation boobu noonu du du chef de service mon le mais il euh, y a une partie qui revient aux agents mais aussi une partie importante qui revient au mouvement de jeunesse nga effectivement les lu ñuy def dañ koy def au niveau au niveau au niveau au niveau du du du CEDEPS les activités les les, grandes activités euh, du ministère c'est des partenaires Le def ministère mënu des activités pour réussir sans pour autant boole ci. mais mais man Comment man li mu wax xaw ma jaaxal parce que yow ngeen ni euh, les mm-hmm. les mouvements de jeunesse. Mm-hmm. ak euh, CDEPS yi euh, service département ak CDEPS yi ay ay partenaires là. Mm-hmm. mais est-ce que kon foofu kii war na fa am kilifteef war na am. Wa, xam nga loo gis lu nekk mënul ñàkk kilifteef. parce que rien mi moo non. non. dañoo am président am ay ministre am ay services déconcentrés le domaine de dem état. amna ci ko xamné mom moko état pour mu encadrer euh, domaine pour mu organiser domaine le mouvement associatif. il y a l'inspecteur au niveau départemental. il y a l'inspecteur départemental bi nga xamné lepp luy mouvement associatif au niveau départemental. mom moy sen kilifa. donté c'est un milieu libéral. Mhm. c'est un milieu libéral. Mhm. mais état dafa am contrôle dafa war am contrôle ci bépp organisation bu am. ci biir ci biir réew mi. Mhm. waxantuma la ci biir département bi. parce que tey nekkul ne da nga créer association. am nga droit wuti xaalis fu la neex. am nga droit effectivement. état loolu du ko nangu. même fu ngeen di jëlee xaalis sax. état da ci am un droit de regard. Mhm. xool mouvement tel ñoom seen xaalis fan lañ koy jëlee est-ce que c'est licite ou bien c'est pas licite donc yooyu yëpp dafa soxla état di ko di ko contrôler activités yi ngeen di def. Mhm. c'est vrai que on peut les considérer comme des activités privées, mhm. comme des activités lucratives, à la, effectivement. Mm -hmm. Mais, c'est parce qu'il y a une partie des missions du ministère de la Jeunesse qui permettent de permettre mhm. euh, effectivement d'assurer la euh, mission. Très Donc, mais, est-ce que, est que, le, CNF e est preneur mhm. euh, à toutes les activités de ces mouvements de jeunesse donc est-ce que vous ngeen mouvement jeunesse opportunité de mhm. mener des activités au niveau des CDF? Oui, xam nga ils ont ils ont des problèmes de locaux ils ont des problèmes de millésjaari ils ont des problèmes de d'organisation pour tenir leur réunions. Mhm. am mouvement jeunesse am problèmes pour mener des activités. te CDEPS baa ngi fi. Mhm. Si ça dañu ko am problème. est-ce que voilà kenn kenn lan la CDEPS mën a def la CDEPS avec ces mouvements de jeunesse. waaw xam nga xam nga boo xoolee li waral développement bi ñu am amuñ ko. parce que si euh, tu ci ci domaine ci organisation euh, même dans ces dans dans ces missions les moyens ça rentre dedans. Mhm. parce que si xolé bi mhm. moi c'est les textes. Euh, bo xolé ñu la on est en 2020 d'abord le décret qui régit les CEDEP, c'est un décret de 74. Mhm. déjà c'est un premier problème. Parce que les problèmes de 74, les problèmes des jeunes mm. euh, dans les années 70, est-ce que c'est les mêmes euh, exigences effectivement des jeunes en 2020 mm. Là, c'est un problème. Euh, sur le plan des moyens, mm-hmm. c'est un problème. Mm-hmm. Parce que Taïbo de Taï, e CDFCI, pratiquement, ils ont tous perdu leur lustre d'antan. Parce que, quand doit doivent créer e CDFCI, c'est yi lu ne lañ fa doon def. Mhm. on formait les jeunes dans les services, effectivement. il euh, y avait beaucoup d'argent. Les services généraient de l'argent. On, a formait des jeunes dans, dans, dans différents domaines. Mhm. Et Et là, nous avons vu que si siw teel a am doole ëpp bàyyi la sax service départemental parce que là, CDF lañ doon gis mu koy mu koy effectivement mais nous, dem CDF nous avons un problème moins. les bâtiments étaient vétustes ni seen murs yi daanu ni ñii service ba jeunes yi sax bëggatuñ fa dem donc CDEPS yi dès la plupart des CDEPS. loolu kan lan moo indi loolu. waa loolu euh, boo xoolee les responsabilités sont partagées. Mm-hmm. les responsabilités sont partagées. pas au niveau des associations parce que association activité les dundee. waaw xam nga su peut-être au niveau de l'État. les les niveaux sont sont partagés l'État a sa part de responsabilité. Mm-hmm. Euh, nous, en tant que chef de service départemental de la jeunesse euh, on a une part de, responsabilité. les mouvements de jeunesse aussi ont une part de responsabilité dans ça L'autre, parce que dama jàpp ne e si vous le de Thiès mhm. euh, mhm. euh, les mouvements de jeunesse ku mouvement de jeunesse wax engagement communautaire c'est ça. engagement sur des choses qui ça intéresse tout le monde mhm pas, pas, pas, pas, des initiatives privées, mais c'est des initiatives communautaires. Effectivement. Taï, CEDEPS, mën na fi nekk mouvement de jeunesse bi wax na CEDEPS bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo koy defar luñ xool muy luñ xool muy yàqu rien que l'entretien mhm. parce que tey euh, boo xoolee tey euh, au niveau de au niveau de Thiès on avait l'espace jeune mhm. l'espace jeune bi ko créer c'est vrai qu'il y a pas un texte mhm. euh, bu nga xam ne mooy l'organisation de l'espace jeune donc mo am problème entretien mu dem ba yàqu. effectivement mais je me dis que tay ku si nekk euh, buñ buñ buñ responsabilité les les les mouvements de jeunesse amana na xeyna na bi tay euh, espace jeune mën na baña a ni parce que tay on a des problèmes d'infrastructures dédiées à la jeunesse. xam nga problème d'infrastructure yooyu xam nga la ma dañuy tabax ba pare. Mhm. jël ko teg ko ci loxo nit ci kooku noonu au ngay jël des activités yoo xamante ne day day day de de revenu la. Mhm. boo revenu yooyu ñu lay jox noonu. Mhm. mais bul ko def si sa poche. revenu yooyu da nga war a delloowaat structure bi. effectivement ah, loolu moom mais bu la dénkee bu ñu la dénkee ni kër. nee ah, na entretien kër boo ciy liggéey dëgg yàlla nit ki nag année chaque année. war ngaa mën a defaraat peinture wala nga xoolaat kara bu toj nga ko mais bu fekkente rek

Le euh, problème bi hmm. ce sont des responsabilités partagées hmm. au niveau de l'État au hmm. niveau du SEDES, e e mais au niveau des associations a jëñ la ci problème manque d'organisation là, mais mauvaise gestion là aussi bu mauvaise gestion là, aussi nous ngi koy dénk la donc une émission petite éducation yar y a moo fi nekk technicien ñuy wax ins di fi xaj que xam naa li nga indi bëri na bind nga ñetti page dañu lay bàyyi

et les cellules départementales de dëgg la dëgg effectivement boo xoolee li ñu waroon wax sax genn wàll genn wàll waxuñ parce que même euh, mission CDFC, yi rek les deux grands euh, composants dafa mën naa la wax ne indiwuñ ko indiwuñ ko mais comme a tàmbali la rek inshallah, dina am yeneen émission yo, xam ne dinañ ci gën a ñëw gën expliquer pour nit ñi gën comprendre parce que CDEPS tamit ndaw ñee ko moom te ndaw ñi war nañ mën a xam njëriñu CDEPS mm-hmm. euh, ci ñoom ci seeni ci seeni bëgg-bëgg ak seen doxalin maintenant message ma doon jàllale ci wàllu covid bi à l'endroit des jeunes euh, c'est un message de, responsabilité. Mhm. Parce que qui nañ euh, le comportement des jeunes euh, durant cette crise sanitaire. nous mhm. mu le de Donc parfois ñuy ñuy attaquer jeunes jël mhm. parce que jeunes yi ont nañ liggéey bu am solo ci. crise bi pandémie parce que mouvement associatif les associations de quartier les mouvements de jeunesse mhm. les AIC nous ne nañ pas ñu sur le terrain mhm. sans aucun moyen d'accompagnement et ça je veux le dire nous sommes sur le terrain pendant trois mois de faire, di sensibiliser de voir mhm. pour nous revoir les comportements parce que comme nous Covid du du du du mooy demal boppam mais nit et ça je pense qu'au niveau de qui est-ce mouvement associatif bi joué na ci rôle bu bëree bëri bëri bëri bëri maintenant nag c' est vrai qu'il y' a une partie de la jeunesse bo xamné xeyna amna luñu amna na doxalé mhm. waaw ñëpp ñëpp ñëpp ñaawlu ko mhm. donc di leen di wax rek né euh bi mi ngi fi euh ku nekk né jël sa responsabilité parce que lokku mu nekkon lo xamné ci ñun rek lay yam muy jaamu mais xam nañu feebar ñi ci gëna sonu moy suñu papa yi moy suñu yaay ak ñu wër ñi mhm. té boko jëlé yobbu ko walu ko sa yaay amaana nga lor ko boo ko yóbbee wàllu ko tabax amaana nga lor ko mhm. kon donc nañ gën a revoir suñu comportement parce que ñun ñëpp a bëgg suñu yaay ñun ñëpp a bëgg suñu papa mhm. te kenn bëggul indi sa kër loo xam ne day lor seen waa kër Et pour l'heure, il faut que ñu respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires notamment le port de masque ñu respectons ko ak la distanciation sociale pour mun a aar suñu bopp aar euh, suñuy suñuy waajur mhm. koy sant di di di gërëm euh, suñu suñu ministre madame Néné Fatoumata Matatal, mhm. wax dëgg yàlla mu jàppale ñu depuis ba covid bi ñëwee ba léegi euh, si la jël ay décisions ferme euh, envoyer ay instructions envoyé au chef de service mhm. pour nous approcher euh, des mouvements associatifs mhm. euh, organiser des campagnes de sensibilisation a ay dons mettre à la disposition des services déconcentrés de la de la jeunesse je remercier aussi le chef de service régional de la jeunesse Madame Diop elle est toujours disponible euh, mi ngi door a mi nagul dëkk bi mais euh, gis nañ ko mu wàcc ci euh, période crise bi wax dëgg yàlla di ci di ci di ci liggéey lu rafet di gërëm aussi le le préfet de la de la du département de de Thiès wax dëgg yàlla chaque fois bu ñu ko soxlaa rek il est toujours présent te mi ngi jàppale ci suñuy action yëpp di gërëm tamit les mouvements de jeunesse et les associations de jeunesse yi nga xam ne tamit samay partenaires lañ mhm. heure mu leen soxlaa woo leen wax dëgg yàlla ñuy liggéey te xaaruñ dara ci man

commune fii Thiès. Mm-hmm. kenn ku nekk na nga xam ne xam sa wàll ci lan mooy sa lan mooy rôle CDEPS bi ngeen dem jege CDEPS pour ngeen mën a liggéey seen gox ak goxaan yi parce que ñoom loolu lañ fi tegee kon mbokk xarit yi tey. macha allah. Mm-hmm. Masha'allah, Masha'allah, Diari, merci beaucoup Monsieur Diao, inspecteur départemental de la jeunesse, directeur du service, directeur du service de caisse. mbokki seen émission petite éducation yar hier, yeete moo dalaloon ki nga xam ne Monsieur Ibrahima Niass Diao di nga amené ne chef de service départemental de la jeunesse directeur du service de caisse Nous ànd ko na suñu jigéen Diari Camara di gërëm toute l'équipe de Prestige TV technicien yëpp ñu ngi di gërëm di santé. sant waxtu yooyu ñu xaj waaye incha allah émission qui ci deuxième partie di de yi di émission précise éducation merci beaucoup